bu ñu askanee benn wax yonent nga xool wax ji wax ji nekk bàkkaar introsel ñaar jamono bi mu koy def est-ce loolu bàkkaar la woon su fekkee du bàkkaar mais loolu du mooy yàlla ci yonent même bu dee léegi ci sunu sharia mooy yàlla la su dee araam na nag su dee araamoon na yonent boobu def ko bu dee jëf ju nu askane yonent jamono boobu lu xaraam la ci sharia ba mu nekk yonent boobu defu ko xamal ne ay yàqkat ñoo ko bind pour mën ko tuutal su fekkee boobu jamono nag takkante boobu xaraamul ci seen diine mais loolu du mooy yàlla même bu ko ab yonent defee tuddul woon mooy yàlla surtout bu dee ki ko wax ki ko wax gëmul ne gëmul ne ab yonent day mooy yàlla c'est-à-dire ab nitu diine boo xam ne dafa samp daara nit ñi di fa mokkal alquran yemu ci mu samp institut islamique ay ngënki boroom xam-xam yu bare di fa génne man bokkuma ci ñi gëm ne yonent day mooy yàlla man dama gëm ne yéen ñëpp loolu ngeen gëm sax man dama gëm ne fii kenn gëmu fi ne benn yonent dana mooy yàlla loolu ku ko gëm doo nekk jullit ah man Serigne Cheikh bi ma dégg ma wax ko daf ko ne moom dafa ni jamono boobu loola du woon bakaar du woon mooy yàlla léegi nag mu des ñu dellu ci istuwaar ñu seeti ba xam loola la woon wala déet loolu rek la amul leneen ndax man gis naa histoire yontu yàlla Yuusuf te du moom kese ah yonent yu bare ci suñu téere tafsir yii souvent ñu ñu askane leen ay jikko yu amul am na israiliyaat yii nekk ci tafsir yi téere yu bare ci ñoom léeg-léeg ñu indi commentaire yoo xam ne ci yonent bu la yàlla dimbaliwul di nga am ci yonent pas-pas bu suufee te loolu mën na la yóbbu kéefa yooyu di ko moytu lu am solo la yonent yàlla yuusufa wala qad hammat bihi wa hamma biha c'est-à-dire mooy namm ca yebu ca ndaw si moo doon provoqué mais après yuusufa nangu na loolu am na boroom xam-xam yu ko firee noonu ne yuusufa sàkkuwul woon de ndaw si tëj néeg bi forcé ko bëgg ànd ak moom waaye bi biha yuusufa mujj na yitte woon ndaw si xaw a mel ni ku ñàkk sabab loolu am na ñu ko bind ci ay téere mais wérul waxuñ ne mooy na yàlla dañ na buggoon na ko wala qad hammat yitti woo na moom ndaw si di mooy yàlla bihi ci yuusufa ñoom ñu fiire ko rek wa hamma yuusufa itam yitte woo na mooy bihaa ci ndaw si man de tafsir boobu ci sëriñ Moustapha laa njëkk a dégg mu wax ne ñaari boroom xam-xam rek am bor boroom xam-xam bu ñaaw xel ak bu rafet xel am na ñu jàpp ne wala qad hammat bihi wa hamma biha ñoom ñaar ñëpp après mujj nañu bëggante mu ne waaye déedéet wala qad bi bihi ndaw si yitte woo na yuusufa wa hamma yuusufa yitte woo biha ci rëcc ndaw si ndax ab yonent du mooy loolu defendre ab yonent la mooy parce que boobu jamono ànd ak ndaw si njaaloo la te ab yonent du njaaloo ab yonent du njaaloo ab yonent du fen ab yonent du wor ab yonent du ñàkk jotal message képp ku la wax na yonent sàngam mës na moy ak téere boo ko mën a liir wérul ñaara mën a nekk loola du mooy yàlla loola ci jamonoom du woon mooy yàlla wa illaa ka ko bind du jullit mbaa naafeq bu nekkoon ci biir diine ji la pour yàq deru yonent loolu rek la ko yooyu tamit ñu di ci bàyyi xel kéefërloo nit warul gaaw waaye daal ab jullit du fas mukk ne ab yonent mës na mooy yàlla loolu moom ñu bàyyi ci xel wax naa ne ñaar yu koy waral dong la bu ñu la nettalee histoire yonent ñu wax ca mooy yàlla bu mu def booba jamono loola du mooy yàlla wa illaa bu fekkee loola mooy yàlla la loolu du dëgg ka ko bind daf ko yéene ñu suufeel ko waaye ab yonent du def lu suufeel danañu yàlla suturaal